rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli ji bokki taalibe yi murid yi yëpp rawatina ñi nekk Amérique ak Canada ndigal li ak kaddu yi ci ñoom la jëm kon ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf xafizahu taala wa raha wa ayyadahu ñu ngi yëkkati kàddu yu bàyyi ko ci moom muy kàddu yu nuyoo kàddu yu cant ak ngërëm ak kàddu yu ndigal yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëme ko ci jëme ko bokk taalib nga xam ne ñoo nekk Amérique ak Canada bayut kenn nag ndigal li nag nañ xam ne ci ñoom la ndax liggéey liggéey bii nga xam ne da koy liggéey Serigne Touba te moom ku ko xam ci yitteem dama naan képp ku ci ginnaawam waxtu wu ne boo góorgóorlu rek yaraanga daan la dem ndax ku xam fi mu toll waaye waxtu wu ne mi mi ngi settante di xalaat di teewlu Serigne Touba di teew liggéey Serigne Touba amul jën yitte day wax ne amul nopp lu amul wàcc kon nag bu yàlla defee ngeen am tawfeex sëriñ bi tànn ndigal lu ko ñor jëme ko ci yéen kon yéen yéen yéen a war a gën a sant ndigal li nag mooy li nga xam ne bi yàlla defee nawet bi am ci dëkk bi ci réew mi ak ci dëkk bi Tuubaa gis ngeen ni mel ci biir loolu nag bi sëriñ bi di yëkkati addiyee di ko def ci liggéey bii comme na ma ko leer la woon ci njëlbeen ndax xam ngeen njëkk na cee joxe deux cent millions ginnaaw bi bokk taal bi murit yépp ñëw dajaloo di indi ñii di indi ci kuréel gi nga xam ne taxawaloon na ko dénk ko waa Hizbut Tarqiyyah ak waa daayira tubaa tubaa ci kanam ak waa commune tubaa Mosquée mu boole leen doon leen liggéeyloo ci mbënd mi ci biir loolu itam sëriñ bi waxoon ne bu demee ba liggéey bi àgg xam ne ne am na ñoo xam ne seeni kër bu kër yoo xam ne bu fa bu nawet bi dellusiwaatee itam nu mën a demee dana génn ci kër mu martale ñëpp dana jafe waaye moom ci at mu jëkk yi sas na ci ñaar kër yoo xam ne eh, ci yoon Touba Belel wi fa la ko bëgg a def dimbaloo ko taalibe Serigne Touba yi nga xam ne nañ ci ci biir loolu yi nag yàlla def ba mu ci njëkkee joxe deux cent soixante millions taalibe Sëriñ Tuubaa indi fii lu bari indi ca moom lu bari ba nga xam ne Marista wax ne li jëm ci lañu ñu recensé woon mooy fukki ju fukki junni famille ak benn li ko war a def la ca desoon nekk trois cent soixante millions mooy li sëriñ bi mujj joxe barki yoon mu wax nag ne li fi taalib yi indiwaat ndax taalib yi moo xam ngeen ne duñ duñ wàcc liñ fi indiwaat nag loolu la jël bëgg koo tàmbalee kër yére ci biir loolu nag yéen mu tànn leen wax leen ne da caa tànn juróom benn fukki kër ak juróom benn jox leen ko ngir ngeen ànd ak moom ci liggéey bi mu ne na kon addi yi yéen doon dajale ngir di ko indi ci moom ngeen necc lool ba liggéey bi àgg ngeen door ko indiwaat ci moom kon loolu mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi sant na leen ko te xam ne rek na ngeen ci góorgóorlu bu baax te xam ne buñ ci defee yitte ak pëstéef lu ci waay def rek boppam la koy defal ndax liggéey sëñ Tuubaa moom amut amut amut amut noppalu amut wàcce te waxoon na ne xam ngeen waxtu ma leen sante lépp xam ngeen nu may xameen def ngeen ko wala defu leen ko ñu ne ko dee Mbàkke mu ne waxtu moo sante nit lépp day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal la nag dëkk moom bu jëfewul ndigal léegi mu dellu si waat ci man di ma xamal ne dem na waaye amu fu ma ne kon nag yéen waa ñaari réew yooyu di Amérique Canada sëriñ bi nee na nañ xam ne kenn génnu ci ñaan daal addiyee ju ñu war a indeti ci moom nañ ko def ci foofu ba mu àgg ñu do ñu door kon nag sëriñ Mamour yow yow mu fi teew ak mboolem bokk taalibe yi fi teew te jot fene nee na keroog bi ma koy siyaar leen ko waroon wax sax waaye ñor na ko lool ndax woo na ma ci ay yoon yoon yoon yoo xam ne ittee ma kon yéen loolu nee na mooy seen taxawaay ci liggéey bi la ca des nag ndigal loo xam ne joxane ko ndax kuréel gi ñu ngi ci mooy li wër jumaa ji ndax neen la bëgg ñu defaraat ko ba nga xam ne ndox dootu fi accepté loolu ak beneen liggéey boo xam ne du koy def ci biir jumaa ji loolu buñ demee ba àgg ci weeru janvier dana ko leeral mhm. te santeeg techniciens yi ñu ngi ci liggéey bu ba tey mhm. ñaari fan ñett yi sëriñ bi ñu ngi koy soññee ndax wax na ci wax bu baatine mhm. joo xam ne ku ko dégg rek nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko sant kon nag yéen moom la seen wàll ci liggéey bi mooy ngeen jëme ko fii ñaan daal bu fa addee jugee ti ñëw ci moom te liggéey bi agut incha allah nag bu balaa ma ñaar ay bis danañ leen jox plan yi ndax kër yi ni muy bindoo du doon kër yu ñaari néeg ak salle lay doon mm-hmm. ak am na ci yoo xam ne dana am salle doon mm-hmm. ndax dafa wax ne juróom fukk kër yi mm-hmm. nañ ko def kër yu am salle yi ak ju ak ak ak ko euh, bu amul ak waañ ak wanagu public noonu la liggéey bi di tëddee incha allah itam kuréel gi nga xam ne ñoo doon saytu loolu itam ñooy taxawu liggéey bi buñ demee ba àgg ci li ñuy def ñoo koy taxawu liggéey ànd ànd ko yéen leneen lay siñ boo def ñoom ñoo koy taxaw bu àggee itam comme ñoom ñoo doon ñoo doon recensé ñoo doon recensé kër yi xam nañ fa mu gën a metti ak ñi ci gën boobaa itam ñoom dañ koy ñoom la sëñ bi di jox ndigal ñu segg ko saytu ko seen bopp ba nga xam ne ñu si gën a tumuranke ñoo ñaa ci jiitu kon daal loolu mooy ndigal bi am naa li nga xam ne rek yitte yitte boppam la nee na amatul jën yitte jur moom mooy li jëm ci jumaa ji ak li ko wër ci la nekk suñu tool yi technicien yëpp nag képp ku di taalibe jox nañ leen digal ñu ànd ko kuréel gi nga xam ne sëñ bi taxaw na ko nekk ci ba ni ko sëñ bëggee moom ndax sëñ Tuubaa moom la Cheikh Ibrahima daa wax rek du santaane mukk lu am te du ma sant mukk lu du def waaye lépp lu santane santaane lu ma luy am la kon la ma waxoon ci jumaa ji rek ne bu ngeen ko defee ñeneen bindeef dana ñëw defal ko nañ xam ne kon lii sëñ bi santaane ci jumaa ji ku dégg lam ci wax dañ ci njëkkanti bu baax feex ba kenn du la ci jiit kenn du la man kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di yóbbante nuyu ak cant ak ci bokk taal bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa